kii mooy sëriñ Modou Lo Seef moom sëriñ Mame Mbaye moom la baayam boole woon ak soxna Khady Lo jébbal Cheikh Ibra Fall soxna Khady moomu moo meññi soxna Sooda Fall mi joxoon sëriñ Baara Jenn ñu am ci sëriñ Naar Jenn kii mooy sëriñ Omar Ñang moom ak sëriñ Mayib ñaŋ ñoo bokk ndey ak baay kii mooy sëriñ Modou Mbodj Cheikh Ibra Fall daana wax ni yoon bi bu doon kaamil la bu lajee këram lañ koy lijjante kii mooy Baye Modou Fall Ñang Anta Top moom sëriñ Maxtaar Ñang fu Cheikh dem moo daan satala gi ki nak moy serigne Cheikh Fall ma anta ki moy serigne Moussa Fall Mbar bok ak serigne nongo Fall Mbar ak soxna Fall Mbar soxna Fall mi mo meñni soxna Astou Fall Mbar bintu Cheikh ro Fall mi ñu joxone serigne basirou mo am ci serigne Cheikh Astou Fall ak soxna khadim bakke sen bàyyi Mbar Joor Siga mo len joxone Cheikh ro Fall ñu nan ko borom jukki motax serigne Moussa Ka wax ni digeunte jukki ak ñamatil dañ daan dajeeka nani boutel ya tax ñu jébalu sa tel Fall jaga ya pexé